muy ñeenti kaa importe ak juróom yoo xamante ne cas contact la ñu yëgal leen tam ne ba su tey bi juróom ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee ci waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan si bésu tey bi ba ñu commencé ak léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la ñu déclaré fii Sénégal ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo si wër bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak juróom ñoo nekk si hôpital ñu hospitalisé leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen topp bu baax ay ndigalam pour que ñu mën a daan Covid 19.